mais booy taxaw maa ngi lay wax ne la waa FIFA. daq dàq nañ affaire pelentu Égypte euh, ah. tulli nañ ko ca xaj. koy tulli ca xaj kay. FIFA félicite le Sénégal. le Sénégal le Sénégal officiellement. <laughs> donc xoolal fi nekk nii de euh, président FIFA bi. Mhm. moom Dip Doundou Guiss daa teg kii bi nii. daa teg euh, pelentu FIFA bi nii jal ko arrière. daf koo jàll. dafa dégagé wala. dafa ko arrière. dafa la penalty la ko def. non non dafa dafa kàjj. da koo kàjj da koo kàjj ci ginnaaw. da koo kàjj. talonné woo ko professeur da koo kàjj. da koo kàjj da koo cuk. dafa dafa bule waay. da koo bule. bule boobu. noonu la demee. Ah, waa Égypte yi may saaga si seen page internet yi soo ba léegi. dem ba léegi. maa ngi leen di jaay bi tax soo koy bàyyi mi nawa. merci beaucoup ah. ñoom ay taqadar wàllu jaalañ. <laughs> Boy Town pour le show. Eh, boy Town pour euh, le faire rire. allez top c'est parti Boy Town. mais mais Baye Pape Sidi. mais dama lay wax benn affaire. waaw ah. tey du ma reetaan. waaw bu la neexee. Hmm. mais waa ji. Hmm. dafa supporter copain am quoi. ñu jóge fi di dem Thiès. Hmm. moom dafa mieux. copain bi dafa dër. mais dañuy foncer génn Tëngéej lijjanti ko ba génn Rufisque nii dugg xam nga. ñi xam nga génn dugg jam ñaajo laal àllum kaañ bi nii rek bàyyi timis bi commencé dugg ñu commencé am problème parce que kiy dawal dafa myope. kuy dër lu tax dawal. saa day jékki-jékki mais mënul dawal dañ ko supporter. Hmm. sama histoire la. léegi sa waay bi muy foncé di foncé ñu jékki-jékki xam foofu code bi day xaw a parce que foofu noonu discontinu bi dafa bari quoi parce que yoon yi day jeex yoon day jeex sa comprendre nga sa waay bi muy dawal fa jékki-jékki rek <laughs> moom benn benn benn faar lay gis quoi ndeke benn faar bi muy gis noonu ah! beneen bi ci des non oto la <laughs> Ah. sa waa ji mu supporté dafa dër day jékki-jékki naa hmm, ah ah oh oh ko bëgg a wax sa waay di gën a foncé hmm, ba sa waay nu ko tell ñoom ñaar ñëpp réanimation ki dër ki moo yeewu ki mu yëpp mu ne sa ko saal bee mu dugg ku dër day dëgër bopp bu jàppee du bàyyi def nañ ni sa waay sa xool ko rek mën na ko tolop tolop oto ko yeggali parce que ñoom bu sonal sa bopp saa xool ko mën na ko tolop ko yeggalee sori na di nan la demee dërkat boo ma yeggalee lay waxoon sax lay wax lay wax waaw kaye naan ka ka nga ne ko yeb danaa kaye da koy yeggali mënoo ci dara <laughs> moom moom moom yëpp aussi mais doguma ko sax mais dans la réalité man bu may dawal di jëm Thiès ba egg ci alukaaj bi alukaaj bi non hmm. non dafa bëri ay discontinu surtout la nuit cette route là te donne autre chose uh-huh. da ngay daw ba si yàgg tëli bi day jeex nga dugg ci voie jàmbur bu fekkee uh-huh. guddi la dootoo gis dara par rapport ak brise buy jógee ci biir àll bi ah oh, c'est un environnement. Mhm. mystique et extraordinaire. <laughs> donc boo fa toolee di dawal dangay ngay raam rek. da ngay beneen waa ji gazeur la. Mhm. copain wu ndàbba la. dafay dawal scooter bi. Mhm. seen ay show. oh commencé gazé ci biir es bi dugg ci kàmb affaire yi dammatoo fursu bi damm affaire yi jaxasoo. Oh. soxna yi ñëw mbaa gaañu woo mu ne bërët ak tàngoor yaram bi. commencé jël bagage yi xoola di sàmbale moto bi di ko sàmbale ci tàng tàng mu doon mécanicien di sàmbale moto bi. non sàmbale sàmbale ba ne cëxët. mbiskitu jeune bi rek na pièce bi laa xamul fu mu jëm. daanaka <laughs> ci yow la jëm nga xam ne tànk bi. biscuitu zën bi la ni cëfeet ne bii laa ko gaane ko ci yow lay dugg gisal tànk bi. biscuitu zën bi mooy lan. biscuitu zën bi moom mooy kii bi. mooy rotule bi mooy euh. boobu boobu. non mais kenn mbaam xooxu ne boobu boobu biscuit la. wala pièce bi laa xamul fan lay def. boobu su mais sunu sunu mbokku séeréer yi. wax nga dëgg ah ñoom daa ma dañuy gazé. non dafa seen show yi rek naan wéy est-ce que xam nga garaaw garaaw la affaire yooyu beneen waa ji moom deuxième étage la jógee. Pape gis nga gazé gazé ku dee moo la rey. Mm-hmm. dafa jóge deuxième na tëll. yax ci suuf dugg ci yi ci kaw loxo yi di buum. non jàdd rek daje booy yi. waaye giraar gaay mën naa wooye. mu naan waaye sama loxo yi kay ñoo ma yéem nii daal. waaw mooy yax yi dañoo dugalante. ni mu dalee moo métti dafa jàdd booy yi taxaw ni sëñ ne day harmoniser gaay ah wooye loxo yi laal suuf fekk mu ngi dee. suñu mbokku séeréer ndeysaan koor gi dafa jege. Uh-huh. ñu takkine leen tuuti. ngóor dafa ñëw rek dugg ci resto bi quoi. changé ko def ko jigaan waay. ngóor dafa sonn. ma def ko jigaan. waaw coow jiwul changé nañ ko. Mm-hmm. pour la première fois nga changé loo ma sama van ma nangu ko quoi. am du dëgg du nga kon du dëgg jigaan la. jigaan dem na jamet ci biir mbaar mi. <laughs> Uh-huh. dafa ñaala kii dem na dem na jamet ci biir mbaar bi rek toog. nango ajinogay nanga def a mburu mi mba des na lu bari mu ne ko waaw mu ne ko dama bu nga xottil ma kilo mburu hmm. nga defal ma ci ndambe juróom fukk hmm. nga defal ma ci mayonnaise hmm. nga defal ma kaasu café nga jox ma ko mu dóor ko dóor dóor dóor mburu bi jeex café gi des tuuti mu ne ko ah mburu mi des na mu ne ko waaw mu ne ko ma ne xottil beneen <laughs> nga defal ma ci ndambe raayal ma ci mayonnaise ma yegg li café gi naka la mburu di jeexee ba fi café gi <laughs> eh muy door kafe gi tuuti la desoon de dafa tàmbali mburu bi rek kafe gi jeex rek mu ne ko nok ma kaas nok ma kaas nok ma kaas <laughs> mu door ko kaas mu ne ko café gi warul jeex ba fi mburu mi mu koy harmoniser ba ci kanam femme bi xam ne kii li muy jël nii instant bii nii non mënatu ko kii quoi am indi coow xam nga affaire yi jàppal bàyyil nii xam ñu yóbbu leen commissariat ñu war leen commissaire bi ne naka la demee rek mu ne commissaire ni mu demee leen kese la soxna si dama ko fekk fi mu toog. walaay. ma ne ko xottil ma kilo buur nga defal ma ci ndambe juróom fukk nga raayal ma ci may nii defal ma kaasu café may lekk di naan di lekk di naan di lekk di naan mburu bi jeex ba fi café gi ma ne ko mburu warul jeex ba bi café gi matam li mburu bu bees bi ma defal Mhm. café gi jeex bëgg fi bàyyi mburu mi ma ne ko na ma defal kaasu café naka may def noonu harmonisation bi commencé pare mu ne ñett du ma defal te pare gu ma xanaa bala may fay ma pare du moom buñ ko du bari comme seet na ko mais yow yow yow li lépp li nga yëpp yaa ko lekk mu ne te loo ci xamul nag gis nga bu doon dég bala moom dellu na dëkk ba de gis nga bu deen dég bala mu ne ko wa mu ne bu ma añandoog ñoom bàyyi toon lekkandoog ñoom loolu lépp wit ci mango ji lekk gis nga bu ma ñibbee bala may tedd damay makasuusal galaxndiku door a tedd. non concert bi nag ah ko toppee réservation damay makasuusal galaxndiku door a tedd. waajoo ji il est fort. il est fort. non jigéen il est pas normal. mais non bi mooy. gis nga woykat yi tamit. sa waay woy neex na de mais am na ñoo xam ne dañoo am aaru woy ci seen biir. dëgg la gis nga toog sa néeg nii. Pape Sidi léeg-léeg xam nga léeg-léeg nga yëkkati ma ne la Fall sa baat bi neex na de. voilà nga foog ne yaa waaw sa waay nii lañ def rek xoolal mu song grand théâtre jël ko waaw. jël ko woo mbokk yi yëpp wax ak ñoom ku ne mu dugg fa ku ne mu parrainé la. sa daal jaayante na am benn bureau bu ko jox cent mille mu dem jëlee ko saal. Mm-hmm. woote. Mm-hmm. ba pare ne moom buy woy dafa bëgg gars nañ fay lumière yëpp. Mm-hmm. gars yi fay lumière yi rek mu jël micro bi ne cas. yéen ñi nga xam ne commencé harmoniser gars yi ne tay lamp yi mu jàkkaarloo benn waay comme ndaa ba mu toogee nii mhm. ne ko billaahi ku gore nga bi ñëpp demee yaa fi des waaj na ko yow laay xaar maay tëj saal <laughs> na ko yow laay xaar maay <laughs> moo fay lu lamp yi te kenn ñëwul dañoo taal lamp mu jàkkaarloo benn waay ne ko billaahi yaa gore xamoon nga ne daanaa la woyal waaj na ko man yow laay xaar booy daaneel may tëj saal damay tëj saal bi gaawal yow yow rek xaar <laughs> bu doon waa Sorano yi ñàkk kersa yi du dóobi la ñuy wàccee ci kawam. macha <laughs> xarit la lu nekk laa leen di yegg. mooy loolu taw <laughs> koor gaa ngi waaj ñëw. waaw koor gaa ngi ñëw léegi koor gi di ñëw. ndeysaan dama ciy nuyu sama mbokk séeréer rek di leen wax ne. Mm-hmm. benn mois la rek. Mm. waaw yàggul. non pël yi ñoo dul woor séeréer yi dañuy woor non pël yi dañuy woor dañoo mm. dugal diine ci lislaam nag. Mm. ñoo dugal diine ci lislaam dugal diine fii ci senegal lislaam déedéet loolu looy wax nii diine ko dugal. fii ci Sénégal déedéet. loolu yi fi dugal diine. nan lañ ko fi duggee yow xanaa xamoo yow yow bi ngay dégg ni sàngara. <laughs> zangara la woon zan. zan angara léegi. Euh, ay ceddo lañ. yor suurulaay bi ñu fi waxoon. waaw. Ah. nu nu demee. yor suurulaay yor suurulaay kay moom dafa harmoniser xam na ne yaro bu ko waxee waa ji dafa ñëwoon pour tiiñal leen di. ay Mouhamed ak. mënuñoo wax ba non harmonisation la loolu c'est que ñun. séeréer ñoo dugal li dañoo intelligent Sénégal. <laughs> waaw après les almoravides ah. eh, eh, ñun sport vrai laa eh, dafa ndànk ñun pël dañoo <laughs> intelligent ku xam pël xam ko ci intelligence. séeréer yéen a ngi leen di mooy xàmmee àll ci ay bàyyi leen li di wax. égo trip ngeen mën uh-huh. barki borom Touba laa lay wax nii. pël danga koy yóbbu ci àll. cinq ans. mu ñëwaat ci àll bi ay bant lay xàmmeewee àll bi. Ah. pël laa lay tegal de séeréer leen gën a xam àll. waaye pël dafa xam àll. séeréer leen gën a xam àll. waaw. yow loolu nga gis yow. Mm. mais c'est vrai. mais yéen pël yi bu ngeen di wax yéen da ngeen faral seen. lan moo tax nga takk séeréer tey. parce que yow da ngay eh. faral pël séeréer yi samay xarit lañ. yow séeréer bi fii la ñëw ñu jam ko ñu jam ko fonde mu muucu mu muucu ndox mi yàbbi araw yi ba loxo bi fees mu muucu waat ndox mi yàbbi waat fii araw jékki-jékki xool ma ma xool ko mu ne ma sawaay ma ne ko waaw mu ne ma fu may yàbbi xooxi xooxi yoyal lii nga naan moo xooxi du dëgg du dëgg fu may yàbbi xooxi du dëgg damay waxal damay damay raxal eh, da raxal séeréer yi da ngay raxal séeréer yi waxoo dëgg waxoo dëgg séeréer yi ñooy moom loxo yee fees mu jékki-jékki ndax sama sama yabee xaw ma. moom séeréer yi eh, wax ne waaw ce fut eh, un plateau. di wax ne public good morning. Euh, particulièrement ñi nga xam ne nag euh, rubrique dagg wàcc daf leen di daaneel. Mm-hmm. maa ngi leen di jox dig daje. Mm-hmm. di leen wax ne yàlla nañu sunu boor euh, borom may. kooru jàmm na pëli woor laa wax. waaw ñu woor ko ci bismillahi rahmaani rahiim. bàyyi séeréer yi ñuy jàpp di leen toog sunu borom defal ñu jàmm. këpp ci askanu Sénégal jàmm jàmm luñ ci am du doy waaw jàmm jàmm jam ɓuri jama eyyi mm-hmm. mi salmini moon onon fof bandiraɓe sehilaɓe yo allah waɗan moon jam okko men korko malaka ya hormonulaat sallah alih wa sallam nuyinaa leen yéen ñëpp min fogole séeréer simna nuun joko njala paax a paax a paax a paax mm-hmm. séeréer dëgg-dëgg yéena moom réew mi wax dëgg yàlla président Senghor séeréer président mm-hmm. Abdou Diouf séeréer Makin sal séeréer yi ñoo ko defar. Mm. waaw mm. Makin Sall séeréer yi ñoo ko defar. fan la dëkk. moo <laughs> oh, ñu may loolu yow Makin. <laughs> Makin Sall Ablaye Wade moo fi nekk. moo fi nekk ku dëkk Njambur. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. mais carrément laa lay wax ni séeréer yi ñoo yor réew. bii réew séeréer yee ko moom amul amul xeer <laughs> séeréer yi laa faral léegi nag su ngeen paree nag na ngeen na ngeen ñëw nekk samay xarit eh. euh, je voudrais remercier euh, Ndamal Daaru Couture eh. grâce à lui je suis bien décoré Cheikhouna Seck il est joignable au 77 030 20 05 77 030 20 05 waa Ndamal Daaru Couture merci beaucoup la coupure hmm. joli. Mm-hmm. je suis très content après dinaa ko laal insam garam. professeur on se donne rendez-vous après le ramadan. ok macha allah vraiment après le ramadan di vraiment sant 2S. di leen mm. sant yéen aussi Pa Lune Pape Sidi di sant ñëpp. di mm. sant aussi mes parents. et si ma femme madam mm. Sarr. et je remercie tout le monde particulièrement aussi il y des personnes comme. <coughs> qui me sont très chères tey dama leen bëggoon nuyu. muy ci benn université bu ma nekk je dirai pas les noms ma nuyu madame Madame Dramé et Monsieur Seck qui est directeur général donc son des personnes qui me sont très chères maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu sama benn xarit boo xam ni ñoom mbàggandoo menuisier métallique la ñu naan ko Mbaye Sène Babacar Sène Mbaye Sène maa ngi koy nuyu Mbaye Sène wëndeelu Mbaye Sène Mbaye Sène Daafru non nuyu Daafru mooy sur surnom <laughs> Mbaye Sène donc euh, maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant sama xarit de longue date d'une certaine manière mi ngi ñuy suivre donc mbay maa ngi lay nuyu merci beaucoup. booy taw. waaw di bëggee waat ñëpp di wax euh, waa jàmm gën maa ngi leen di siyaar bu wér di nuyu sama famille. waaw mm-hmm. di nuyu waa Géejawaay particulièrement sama waa kër maam cité Abdou Diouf di bëggee waa kër ma saar di wax ne sama lonko sama xarit Abdou Baar keroog dafa maa invité fële ca waruwaay di nuyu di profité waal si occasion di nuyu sama frère Lamine Ba di la wax ne mm-hmm. le jantal Mara maa ngi lay siyaar bu wér di nuyu Demba Senghor di nuyu sëñ euh, Lamine Diouf fële ca jàmm gën euh, taalibe taalibe taalibe sëñ Sidi alxuraan boobu di wax ne waa waruwaay maa ngi leen di bëggee bu wér particulièrement famille bar dama faa ñëw keroog ñu teral ma vraiment jëlee ko ci nag euh, kilifa gi sunu papa dama koy teg ci loxo Aliou Baar mu leen ma ko famille bi yëpp quoi maa ngi leen di bëggee yéen waa waruwaay sama chéri yi xam nga nu mu demee xam naa nu mu demee après mu ngi cool ay am leen jàmm yéen ñëpp mm. jaajëf merci beaucoup Papa Lune on se retrouve juste après le Ramadan inchallah oui juste après le Ramadan quoi vraiment voilà c'est ça très content très content vraiment bi mooy suñu dernier euh, good morning avant le ramadan donc euh, on revient après le ramadan aussi di nuyu xale yi euh, mm-hmm. madame mm-hmm. aussi di souhaiter joyeux anniversaire à Marème Samb madame Deme mm-hmm. Samb joyeux anniversaire <laughs> madame Samb et après le ramadan inchallah je vous donne rendez à 14 pour un numéro de Arru en direct ce sera aujourd'hui merci d'être en compagnie de nos programmes Mime séeréer ya ko moom